jàmm am léegi nag ñu bàyyi la nga ubbi waxtaan bi wax combat bi lu mu la jaral combat bi tamit ban importance la am ci sa surtout carrière ginnaaw ndaw ndaw li nga jógee ba ci boobu. waaw ah, jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Mamadou Bokko Fall suñu doole ak alhamdulilah. waaw maa ngi leen di ñëw sant ñëpp di dalal sa waa ak sa nga nekk jàmm waaw te jugee jugee jugee naa si ndam yàggul nara demaat si ndam te incha allah ndam lay doon. li ne mbër la champion la joxe ko cër mais dañoo nekk xale amul boot suñu ginnaaw mu diis te loolu dara dañ koy yor doxal moom. di nga ne am na combat man tamit am naa combat mais le si kàttan suñu borom léegi li may xew yëpp maa koy def waaye si kàttan suñu borom. le 26 ba weesoo yëpp maa koy def maa ngi bëre maa ngi bàqu maa ngi si Dakar si kàttanu suñu borom. xam nga bu baax kii nga bëri. xam naa ko bu baax a baax a baax. maa ngi balaa ko jaaxal ko moom. waaw ah, dafa damaa nekk si laaw. mais xam nga daanaka ni mu daal. non ñooñu man ak ñooñu bokkuñu moom. génération euh, ñooñu bu ma ñëw si laaw boobu bu ñuy bëree ñooñu man maa ngi jaay école. ay Ndandi Fall. man samay génération ñëpp dama leen daal. ay Youssou Ndour bu mu école de Louga la ngeen. jamono jooju maa ngi jàng Malick maa ngi jàng école. <laughs> maa ngi jàng école damaa ñëw ràmpe daan samay morom yëpp. moom mu def joloore. di nga ne lu ah, muy def seen si làmb yi rek. le 26 14 suñu borom dëggal ko moom. wala laa may wax ne dëggal ko moom. incha allah. ah leer na ba pare. kon yow nga problème. aada nee na lu fay am moo koy def mooy màgg bu neex mooy puus bu neex mooy bëri bëri mooy daan jënd nit daal masque bi masque bi kat wax naa bay bëgg a dee kuli moom tey ñàngal lay burxaan doo wax bu dindi masque bi corona gi jeex bismillah bismillah jërëjëf When we saw time on the road, on the farm, yeah, as the life and class, she was sleep. She I knew the Bible. We were jumping, carrying it. I knew. Sanırım Allah'ın doğrusu tanıtan bunun bakımız bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Bazı arkadaşlar aldığımızda faz bal, kuru bal, argan bal, balları ne olacak? Bal bakayım, bal onu cilamam, bir bak cilam. Ama dedeleri var. Avcı mı onu buraya çağırıyor? Bir mor var mı? Ne var mı? Lamı gibi. Mor lamı olsun. Ona nokta, ona mı gidesin? Dur. loolu ñu ma fi loolu ak ma fi incha allah. voilà wax ñàkk na fii moo tax nga daaw a ji ba pare takki weer. Mhm. léegi lépp lépp ci ñàkkal bi la ak bagage. non lu nekk ñu koy waajee rek. waaw lu nekk ñu koy waajee. lamb bi lamb daal sama. yëkkati micro bi sonn. daal sama ñu ngi ñu sonn. waaw daal ma fi jógee incha allah. li ma moom benn xam nga ma moom rek. man li ma man man li ma li ma man li may def. non bàyyi. liggéey bi nag dama la gis. dama la gis dama ko wax. Mbaye Ousseyn Bichir. nangul nga koog daanaanam. champion la daanaan la. loolu daanaka moo bëri moom. mais ma ngay waxal man ak moom kese moo ñu boole. kese waaw. maa ngi. moo ñu boole fan. ah dafa am ne combat bi muy gën a yóbbu ci combat bi. wax dëgg la boo ko loolu lu muy wax. boo nekk combat bi nga jëlee ñu àndal bàyyi ko. loolu day wax loolu dama wax. mu leer mi wax loolu. nee na moo la yóbbu ànd du mën a daan. waaw ah, lépp mën na nekk. làmb bi ko bëri te ñëwul. moo làmb a li leer làmb ji du làmb bi wax làmb bu jëf kese sama gars yi ñoo leen di jàpp ci bagage yi ah ngeen di bàyyi père Malick muy muy baaxee bi ayca sama gars yi ku ci am laaj ah, nga laajaale leen ko de toute façon dégg nga li wax làmb bu nekk ak laaj bii la laajul wax jëf la laaj te jëf la bëgg a def. waaw dégg nañ lu mu wax bu baax. bu dee xalaatam rek la wax xalaatam rek la wax léegi laa mos a yóbbu waxul ay wax wax moom bii da ko war wax bi waaw la wax quoi la mu waaw la mu waaw loolu la demee du yomb quoi mu ngi koy jéem a teg nii du foofu dégg nga ma laa mu dër bi. ah nee na cachet moo leen boole tey. ba aaree bi sifflé na xam ne kese moo ñu boole wala laa moo ñu boole laa mu ji laa gën a fonk sama carrière jaral na ma lépp kon lu ma wax seen tool rek laa mu dañoo yaakaar ñu nekk xale te incha allah rabbi la benn si dina leer. donnee ko cër bu mat sa gën a cër bu grand frère. gis nga danger de mort mu def yuuf mu def loxo xeexkat dëgg la. xaw ma ndax ñu ne nga taxaw gaal ak moom wala déet. laa ko ni lu mu laaj ma indi ko maa ngi lu mu laaj ma def ko bu nekkee bagaar ñu bagaar quarante cinq minutes bu nekkee bëri la ñu bëri quarante cinq minutes lu mu laaj da ngay wax. incha allah. mooy dañuy xaar combat bu métti seen diggante yi dañuy xaar combat bu métti seen diggante yi dañuy xaar aussi ngeen jaay combat bi parce que ay ndaw comme yéen ñoo leen fi dëkk bëgg combat bi moom mi moo la wax ak mais laaw bi moom dër bi la wax dër bi moom ñoo ko dër baax moom bu jeexee rek jeex dër bi du moom dër bi moom moom ñoo ko dër bi ji. moom laa ko. li may li may dër bi. du moom du moom ah moom sëñ yàlla moom daal du dër bi. bu jeexee jeex na dër bi. dër bi mooy koo xam ne ñaar bu jeexee ba sa kii. maa ngi wax ko kese ba tey jeex na. laaw bi ba ñàkk a dër bu ko dër bu ko dër dër doo fexe ba am dara doo fexe ba tey. du bëri ñu koy nax man man laa baax la zone bi daa ma géré exactement maa ma géré ma géré waaw daa ma nekk par zone bi. 45 minutes de fer yi ndax ñu demoo ko séeréer. yaa ngi daa dëkk. xam nañ ko su ma am combat sama tànk jéego ñu ma. dala ma am. cootu bi cootu bi. waaw li muy baax aussi li muy baax làmb gi nga ko mën a ñeegul. su muy bëri di làmb yi excès wu yaa ngi jiw. bu la waayee yow nag bu mu suuf donc mu lay nax. bu doon suñu baax ñëpp ci mbéy lay ñeel maa moom man borom tënk prix yi des na des. mais Coly. Coly. génn face du daal face. waaw général ak aada face lan moo siy ñaaka moo koy gis mooy seen différence. ci qualité yu bëri. ci qualité yu bëri mu mujj ak ki nga am. général ñu ma daal bi dana ma daal. général ñu bëri bi dana ma bëri ñun. am na loxo bi bu koy soppi daal. c'est moi général jeex na jeex. ma daal Coly mais mais booy bi daf la ñëwee te ñi nga bëri bëriwut ak ñoom est-ce que loolu jëmul nga tax mu ñëwee sa dara loo wax mu gërëm la. Ah, mais mais li mu daan liggéey si ñaari la. yow. li ngay wax soo ñëwul ñu ngi àndal bàyyi ndax du ñu loolu yàlla am na ma wax laa desante la ma fi indi. dama koy tuddee fure ak sama lamb yi de lamb dàgg sama. mais lamb amateur la dañuy xaar lu neex ci seen diggante. wóor na moom moom man. bii daa yëngu ngay def. ah bon man tamit noonu boo xam ne yow xaaral ma may def. lamb bi mu ngi yëngal suñu yëngu ma yàgg entraîné. bu ngeen bëri mu neex bu ngeen fekk. dégg nga man dama yàgg entraîné. saa yi lamb bi dama nekk sama yaram. Ada est-ce que dégg nga li booy bi wax. 4 avril 2021. ba léegi maa ngi àndal. damaa pare. ku bëre du wax. mais ñu bëre la garaaw nañu de. ñooñu man ak ñoom bokkuñu génération. loolu. sama génération la mu leen far ma dama leen ma jeex. mais mais kon yaa ngi doon def coup de grand. comme sa génération jeexal la demee damaa wane samay preuve. ñu ma bëreel ñooñu la ñoom la. man ñu ma bëreel. ñooñu samay génération ñu laa toll sama génération dama leen daal. kon kii mooy sa passé. pour de incha allah damay jàpp dem. ah dama koy ñeme moo ngi nii dama koy ñeme. dafa am yoo xam ne dafa ko ñeme am bis la génn suñu diggante. Arafa sànq dama la laaj. nga ne combat bi du am une minute. déggoo ba dama ko ñeme. dafa laa moom dafa am bis noonu léegi léegi. dama doon dox si gàllam. kon yàlla mu ñëw yi. dama dox si gàllam balaa force. Arafa dama ko gëm. dañoo gis Coly Faye xeexkat la. day combat bi yëpp lu si bëri xeex balaa muy bëri day xeex. te combat bi dañoo gis Coly Faye da laa jox te loolu. am na cër bu nga jox làmb woon dara man du ma ràmb sama avenir boobu sama si làmb du ma réglé te làmb ji incha allahu rabbi lay feeñ te xam naa lu tax ma ne ko làmb ji dëgg la te si kàttan suñu barab la 26 la xam na ne làmb ji dëgg la. moom nee na jàpp ko derby parce que xëy na peut-être voilà. derby la derby la. nee na derby bi yaa ko. non man du man ak moom. mais moom xam naa moom rek ñaar la. te incha allah rabbi dina xam ne ne. du mën ak moom laa ma ñu boole rek mais du mën ak moom si laa da ko liggéey quoi. aada. aada li la dégg kanam bi du kanam bu ñu dóor fan la teg loolu. waaw yaa ngi fexe suy benn quoi fexe benn moom yaa ngi mais man dama aar la sama kanam. maa ngi def boobu. bu dee bu dee xeex mën a xeex ma du ma te bu ma ko laajee mu yàqu. damaa xam sama bopp. si sa si gàllankoor nga ko teg wala ci la. damaa xam sama bopp. onze combats laa am bëri mosuma dem xaaroon. mosuma am avertissement si la. damaa def la. te si quatorze suñu borom la vingt six dina leer. bu ma ko yokkal ay adversaires ñu mu bëri ñoom nekk sama borom waaw ñooñu dem ñu si lamb. Ada Fass Ada Fass moom ñaata nit nga koy may parce que sa combat dafa gaaw. combat bi du mat ay seconde la maa ko wax du mat minute. ah. waaw kay ne la ko wax. ba si lay gën bi rek. waaw léppay tàkk. waaw man li ma lay laaj mooy que. li ma la déggee dafa mel ni da nga xeeb Coly Faye est-ce que am Coly parce que gis nañ ko ci biir làmb daan naa ni mu bëreel amaan na sax tey bu bu jox la ci biir daan naa ni di nga ci am adversaire fondation bi suñu ñu suñu bàyyi bala wala na ay yoon booy jaay ñi ma lay wax le dafa mel ni yow amoo kilifa ci mu jaar ci biir làmb est-ce que boo ko xeebee lu amul la mel ci kaw wala làmb ji xew ma ko ndax damaa yàgg bëri ay làmb ni la ko xeeb làmb gi dama xam lu ma jaar ci làmb te leen maa yëpp te damaa liggéey nekk xale saa aadama benn yoon ci làmb xam naa ne champion la mais damaa mën a bëree kon ba mu mën a jël see nga daan ba mu jël see daan kon da ngay taxaw daan bi. si gàtt la si barab la 26 lay leer incha allah. fenn laay gàttal ak yow ci côté xeex bi moom remarqué na ay combat même bu la dee daan wala nga koy daan foo mën di jaar nga lajjal moom mënuloo ci xeexkat bi mu doon est ce que bu ñëwee samp jaaga daw bëri bi xeex yow loo am ay jafe-jafe. le 26 la combat bi yaakaar naa incha allah baax a am si liggéey si diggante mais Ada ñu ngi lay siyaara dañoo gis sa ñaari adversaire yi nga génn muy euh, Tapha Mbeur ak Jokel dañuy gis da dox seen ko adversaire ci bi ba am li nga bëgg Coly Faye bi ndax mbër la bi nga xam tamit da ngay dox ci kawam ba am li nga bëgg ndax gis nañ moom ay combat am day nga mhm. am carrément ah. ah. mais Coly dañuy gis nga am foo jógee sa diggante général ñu gis tey nga jël Ada Fass Ada Fass daanaka fan la mën a yóbbu ci biir làmb ci biir làmb. Coly daal boole woon na laa wax waaye booy bi ñeme na la loo xaw ma da ngay parce ko nëbb sa bopp ba bés moo tax bëggoo wax wala déet mais daal aada sóobu ci sa mboj lool ñeme na la lool dëppee na lool. looy wax ci loolu. Paar Paar boobu nag bu ma daan ko bëri moo daan xeex dama yóbbu àll ñetti yoon sax ma daan loolu yëpp moom la kontaan dama yóbbu àll trente fois ak ma daan loolu moom la kontaan man du si laa daal la def dëggoo leen suñu si nga def la laay xaar li ma war a def. lan nga war a def wax la. maa ngi leen di nuyu incha allah nga xam. mais Coly Faye. sa communication bi nga doon def ci yeneen combat ak bii dafa changé. doon nañ gis sa combat nga doon jaay. Mm. xam nga ca adversaire nga wax ko li nga xamante ni yéen a jëblante mais gis nañ boobu ba léegi Ada Fass moo yor li nga xamante ni moom la communication te combat combat bu jeunesse la combat bu xale la bëgg nañ ñu jaay combat. bu dee naa su rek. waaw. Lafa bu koy wooyee. Lafa bu koy wooyee dafa doon mën a jaay. lii <laughs> kay mën na jaay. waaw ba léegi jaay nga ñu jaay. def na wax dëgg yàlla na tur bi. kon di tekki bi tur ay tekki. bien kon da ngay wax de. bu ndox leen moom la kosam. loolu yëpp moom la kosam. waaw li ma li ma wax mooy mooy su ma xëy bu baax bu doxee sa kaw nag. waaw. nga bàyyi ma suñu ji rek bu def nga xool. amoon ñu ko doon bu ñu mujjee. su ma daax lépp. moo ma ëpp lépp. moo ma leen nga jël lépp au jour. ndax dafa am loo bëgg a wane ci combat parce que gis nañ ne sa combat yëpp. daa yaa ngi jëm jëm yëpp boo ñëwee da ngay dox seen kaw ci signature andi leen ay jafe-jafe jour bu làmb nga doon nga def noonu lan moo tax jour combat bi communication bi du ko wàññi. loolu mooy donc moom si taawul yi yore yi woon la. nga yaay ko wërëm yi dama ne problème mu ay jaajëf ba toog rek ba ko bokk soog waaxu bi la. am doon dégloo ko la. loolu moom moo tax ngeen. loo xam ne basi góor a koy bay. ah maa fay ngeen. ayca mu gaaw avant dernière question. voilà li ma li ma li ma indi mën naa du question quoi parce que dañu dañu dañu gisoon dër bi ci diggante Fass ak Thiaroye. bu ko jëndee fi trop te mën nañu ne moo ñëwaat. boo jëlee bàyyi mu joon ak Djily Mbaye bàyyi mu joon Babacar Diallo bàyyi mu joon Gris Bordeaux Gris Bordeaux Fadé Ndiaye numéro 2 Fodé la Tapha Gueye numéro 2. yooyu yëpp bu ñëwaatee day nekk ak dëng baax ak li nga xamante ni mooy caaxaan. ko jëm ko gis mu ñëwaat. gis ñaari mbër yi loo xamante ni dañu ko niroo ñoom ñaar euh, radiement yi. muy ñoo xamante ni kenn ku ci nekk da ngay dóor faam jël. qualifié day dóor jël. ki nga xamante ne mooy aada day dóor jël. ñaari parce que mën nañu ne moom la ko gagné te qualifié numéro 2. digganteem ak jëf jën seetaan nañu ko presque noonu la demee digganteem ak li euh, nga xamante ni mooy naan yi faar presque noonu la demee digganteem ak kéwél yi bien vrai que nag daan na ci mais da ngay bi may indi euh, Coly Faye dama ko dégg mu ne dafa euh, bëgg xeex trop trop trop loolu naka la ñu mën ciy wax ñoom ñaar. Ah. boo yëgee moom parce que l'entraîneur bi nga woo dina tàmm. ah dégg nga. mooy jëlee combat yéen war nañu ko tàgguñu boppam balaa muy jëlee ci boppam. kii nan la ñu àndal. moo xaw ma béy xam nañu. kon suñu subaa suñu subaa nan la ñu àndal nii. amoo yu toog yi bàyyi baal yi. moo xaw ma béy ñu xaw ma damay wax làmb yi seen bële xam nga la ko mën a. dama tënk ak moom. bilaay la ngay xeeb da ngay ko naan. wóor na sëñ Baba Mbaye. ndax il mën a moom. ah yéen ñaar sama yu nangu ko la ay garab. mais fay dañ leen ñaan. dëgg ma la wax sama yu nangu ko la ay garab. bilaay wala wala la wax. mais est-ce que dina ko xeeb lii. Ah. xeeb waaw dinaa xeeb ñu toog def kër yi. waaw. musul am ngir borom. xam nga doom sama wóor naa am doo koy dóoree. maa ngi sëñ. waaw musul xeeb ñu borom. te moo yóbbee fii lii yëpp. làmb ñu nag loolu nga waxoon sànq ñoo ngi koy dóor fab bi njëkkante lay doon wala. dóor fab làmb gën ko bëri ñu yóbbu. daal boobu ñu def. mais dafa ak sa daal. dafa kaw de. ak ñu woote ca tàggoo. waaw. waaw. Euh, Malick euh, balaa ngay kii rek man dafa am lu ma bëggoon bu fexe rek comme côté bi ginnaaw mën na ñu fi kaw ñëpp rek xam nga waaye mën naa wax suñu réew mi mën naa toog wax. ñaari ñaari ñaari mbër yi. am na doucement doucement. Babacar. kon action la dafa neex. waaw ñu ngi woon jaaree géej yëpp. ñu ngi woon jaaree géej. café bi lan lay demee Assane. waaye boo yëg bàyyi ma jël mag ak ndaw. parce que boo xam ne waa yëpp ñaar nataalu dara ngir may ñaan yàlla subhanahu wa taala may woo waa jàmm na doole ay sëñ bi ma doon ñëw def solo maa ngi jaay laa incha allah loolu ñu def rek baaxul may woo ñëpp may woo gën a am saa gën a sama gàncax gi saa wërës ma woo kenn ñëwoon sama papa yàlla na ma lay woo si làmb yi ba mu dëkk bi ma dëkk sa am jaay laa incha allah ma woo ñëpp ma woo di daal sama xarit Mbaye Diagne ñu lay woo Aziz Aziz Gueye ñu lay woo si làmb bi yow yàgg na waaw monsieur le maire maa ngi jaay naaj si làmb waaye maa ngi woo ñëpp ñoom bu la jaaree ñu bàyyi ko képp da nga dawee jàmm nga jaaree jàmm nga ñu ba jaaree jàmm nga ñu faat si kaw gën mbay faat gën mbay faat fora surtout baaw garam baaw seen baaw ñu ngi lay ñoom ñëpp bàyyi ko képp ñun sama baaw mooy yeewoo faaw ñu defal seen doom mu ngi leen tëmbal ñu ñëw ca jàpp si nag supporter yi maa ngi woo ñëpp may woo samay supporter samay supporter maa ngi woo leen wax ñu ala violence allahuma ni ñëpp la am violence allah ñu yàlla tuddee ay na sa allah jiire allah ñu doon man naa ñu tëral bi salaam maa ngi woo ñëpp ñu wax ma sa ñu jàpp si lamb waaw may ñaanal sama benn boy maa sa yàlla dina am fa bu ko ñaanal si yow mooy naa ba mu gën a ba mu jëm gën a jigéen yàlla su ko doon faral baaxee ci yàlla def ko li ko defee ci loxo maa ngi woo ñëpp ci làmb waaye ma kenn la am saa dal seet tamit waaw sax koo ñaan jàmm rek am jàmm tuuti rek war naa ko ñaan dama yàlla ma yëngu rek rek loolu moo jëriñ ay ca aada.

maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. di leen dañ maa sas sànq moom mooy wax nante man nante yi ñoo ma génnee ñoo ma yar boobu maa ma toll nii. moo tax du ma suñu. loolu mooy sànq ba léegi maa ngi ne laa moom laa nekk pour mu xam ne maa ngi woo ñëpp gars yi kajoor bi yëpp maa ngi woo Saliou Diop. Saliou Koma Diop maa ngi woo ñëpp di woo waa Koule di woo waa Waaw waa Waaw yëpp maa ngi woo sama yaay waa Waaw waaw yëpp maa ngi woo. fekk waaw waaw waaw waa Fouta di woo waa Casamance waa Gambie waa Pout Baye Fall waaw di woo Fass Colobane Gueule Tapée benn Dakar benn Tali HLM waa Mignane Médina Dakar bi yëpp mu ne leen woon jëm bokk ak ngor ba Serigne Saliou di woo ñëpp jeunesse bi yëpp maa ngi leen di woo si laamu ji ndax laamu jeunesse la ñu bëri ay xale lañ bëri ay xale lañ waaw di di woo tamit sponsor bi pour ñu jàppale sport bi mu demee mu jël mu dul laamu te làmb lañ yaakaar nekk ay xale yu ndaw nekk gëm Sénégal ay ay ay kii lañ daal ay xale lañ dama nekk yaakaar réew mi parce que seen bàq boobu nag dañuy gars yi gën a jàppale. di wax ne. il faut mu pare arrêté national trois combats la am trois victoire te incha allah bi may quatrième victoire si kattan suñu borom waaw bi ma jël sama sama waay sama gars yi ko ñaanal suñu borom. defal ko jàmm ma si bàpp di ko nuyu nag ñëpp ñaanal kooku suñu la kooku sama waay la sëñ Saliou di bëggee ñëpp di bëggee sama sama benn yaay bi benn yaay maa ngi bëggee bu baax sa kooku sama yaay la di ne am na combat bu mu wéeru bu mu wéeru fenn di ko ne du demee na wax wiiri wiiri jaay naa leen incha allah rabbi